dañ ko war a seetlu ah defe naa ne loj moo nekka comme after loolee ka break time ah soo ko defaloon mburu ak juice ak leneen si baagam bi wallaay ah su génnee tamit school dafa am counselors dafa am teachers dafa am prefects prefects mooy nekk si ñu ñu nekk overall students yi although they are not more teachers but dem fa tam pour play part bu significant lu important student bi du génne si buntu school without genuine reason ah soo amee sa mburu sa lañ ci biir baag bi sa mborom tam def di same thing mm-hmm. foog ma ne keneen a xalaat alcool de because loo bugg a am foog nga gis foo ko amee mm-hmm. ñuy joxe tamit si yi pour ñu jaay alcool dañ war a seetluwaat loolu alcool nekkut di fi caaxaan mm-hmm. because soo mandee rek nekkaatuloo sa sago réer nga mun ngaa def lu nekka lu si dese moo nekka jégalu balaa leen ma tey ma ko woon te xam ne ne tey ko because yow loo def tey ko sooy lantin nit lantin nit da nga ko war a lantin lu proper waxuma ne daal li fi nu dee waaye soo ko lantin na make sure ne compagnie bu nekk dafa am mën yam mu nga am borom compagnie bi ah suñ déggee ñu ne lii product of this company la mu ngi cib ba nga xam ne mu ngi asi effect si suñu xale yi leaders of tomorrow ah ñu nekkoon ñu nekkal leader léegi musoon nañoo nekk xale de mm-hmm. loolu leen war a seetlu mm-hmm. nekku ne leen juddu rek nekkal leaders xale leen woon te di leen yar mm-hmm. te yëriñ bi fa nekk ne family dafa war a nekk one unit dafa war a nekk benn time boobu di nga gis ne comme suñ yaay suñ papa yi comme let's say comme yéen seen time munum fekkee ma ko de da ngeen doon toog benn bool ñu leen a aida si lu nekk lu mun ni def ñu la xale bu jigéen baa ngi ci yaayam xale bu góor baa ngi ci papaam tal bu time boobu gars yi taluntoon comme let's say xaalis bu bëri sax léegi xaalis dafa yóbbu nit yi nga xam ne talun seen doom yi mm. te xaalis soo ko talutee rek mm. ah, xaritam su ko waaye dara daf koo de. parce que demee school ma waaja su ma laaj ana sa homework bi ma ñibbi si su ma waxul ma yow loo def tey ëllëg su nee du dem school parce que su ma laajaat. Mm-hmm. te su ma demutee du ko xam. Mm-hmm. exam ñëw ma fiil ñu jaaxoo maa ngi malpractice moo nekk maa ngi def lu mu ootewut ñu daaxam ma génnoon ma ko su ma yaay su ma report card bi ñëw du ma laajte. xam nga lu ca métti boo exam ñëwee nga a mm. ñenn ñi ñenn ñi dañuy responsibility ñu ne teacher bi ah eh, te ñun gis nañ bu nekk sa ennemi la. Mm-hmm. student bu nekk loolu nga de gisee léegi tija bu laa jéem a wax lu baax ah foog naa ne daal waajur yi tamit dañ war a seetlu lii. Mm-hmm. soo si school seetlu fooy dugal sa xaalis te mm-hmm. loolu dañ ko war a seetaat. macha allah ma toog fii suma kaddu jéegalu si lu ma wax. waaw Ousmane oh, Ousmane. asalaamaaleykum. maa ngi laa nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Yacine Thioy maa ngi jóge SOS Haman Mayina technical senior secondary school. waxtaan bi nag lu am solo la te lu tax mu gën a am solo mooy xale yi te xale yi ñooy ñi nga xamante ni ñoo njiiti ëllëg yi xale yi according to the law of the Gambia ñu ne ñooy ñi nga xamante ni they are below the age of 18. Mm-hmm. te képp koo xamante ni mu ngi below the age of 18 ñu ngi war a expect ne mu ngay dem school waajur yi tamit den am part bu rëy bi ñu war a play si lii yow man maay sa doom ma maag yow ñëpp a si kër bi. yow nga xëy suba fekk eewoo nguma sax nga dem school nga dem liggéey raada yaay bi moom it eewu dem liggéey man xale bi ma eewu sanga suma boppa baagal su eh, dem si bitig bi su fekkee bitig ak sa bunti kër nga dem fekka fa sa lunch nga dem school boo àggee si school bi parce que yow kër gaa ba nga fa doon jóge sa yaay dem na sa pa dem na boo àggee school bi lu la neex ngaay def su la nit ñi di waxal nga si kër laa jógee su ma yaay ak su ma fa gis ne ma waxuñ ma dara yow amuloo benn raay pour wax ma dara lii yëpp dafa nekk li nga xamante ni lu ñaaw la te jikko bu rafet tam danga ko war a taal parce que lii yëpp boo gisee mu ñëw tey si jiko bu ñaaw la ndeysaan anti ayda démb maa ngi doon déglu waxtaani sëñ Abdou ay Junior si Télé Gambia bam ne waa ji dafa jaamu yàlla jaamu yàlla ba dara desu léegi lu dul yàlla àtte ko yàlla jël ko sànni ko si safara bu gën a biir safara ñu ne lu tax lii yàlla jé yàlla daf ko jéppi nga jikko ju ñaaw te lii soo gisee si jikko bu ñaaw la bokka lii nga nit war koo génne nit njaay ak xooli doomi aadama nga war koo génne pour yaaxal suñ xale ëllëg yi ñii ñi nga xamante ni ñooy njiiti ëllëg ñooy defar ëllëg buñ leen defaree rek suñ ëllëg rafet soo gisee suñ dëkk bi dëgër xale yi ñoo koo dëgëral su ñaawee suñ xale yi la ñoo ñaawalal fa am xale yoo xamante ni lu ñoo wax home ak house fa am xale yoo xam ne si home lañ jógee am xale yoo xam ne si house lañ jógee suñ ne home mooy xale bi nga xamante dafa jógee si kër boo xamante ni waajuram daf ko tal mu am ay responsibility kër bi am ay rules and regulations xale bi ñu ko xool nu moo doxalee ñu tal jàngam suñ ne house mooy kër ba nga xamante ni kenn talut sa morom lu neex waaye def façon yii nii soo ko gisee si biir kër yooyu la moo dem te lii lu kum lu kum laal ku nekk dina la laal parce que fii ñun ñëpp den bokka su laalee kële su affegee kële dina la affeg yow sa boppa te lii nii tam dafa am xale yoo xamante ni xale yu bëri den am feer boobu noonu wi seen périn den ragal seen périn da dialogue bi nekku fa si xale bi diggante xale yi ak périn bi dialogue boobu su laakee yow périn bi man mun naa xale bi mun naa dem si bitig bi jëndal lii jëfandikoo ko ñëw toog sa boor yow amuloo joti xale bi doo mun a centre bi sax du la mun a dugga mhm. parce que amuloo joti xale bi waaye su fekkoon ne parent boobu la bi nga xam ne dialogue baan fa naan li ñëw toog sa boor ngeen ma yow loo naan mel la si bitig bi laa demoo jënda fa lii foo jëlee xaalis bi bu dee dama ko sàcca di nga xam ne dama ko sàcca su fekkee den ma ko may di nga xam ne den ma ko may lijanti ba nga xam lii lan la ngeen ko lii baaxut su ko defee su ëllëgee xale bi du laal li su gisee moromam di ko laal tam na ko wane su ma yaay waxoon na ma lii ak lii ak lii mhm. bu ko laal su ko defee loolu dineen am eh, beta tomorrow am eh, beta ci su ko defee xale yi ñu mën a stop di jëfandikoo lii jërëjëf maa ngi aacis eh, ma kàddu asalaamaaleykum maa ngi nuyu suma yaay yu fi nekk di nuyu monsieur Thiam di nuyu suma principal monsieur Diame fi toog am ni ja borom xam yi ne ne sa tur Ousmane Gamens laa ah. mm. xam yi ne like xale su baaxee ñu um, la waaye su bonee ñu ne bi la waaye di ting mooy xam nga nit ki am na ñoo xam ne dañoo dugal seen doom yi school waaye dina nekk full three good years or four good years dem si school bi ba pare yaa ngi itam damaa blame students yi because dañuy laaj gars seen parents yi seen number ñu joxe si school bi ca Thiès yi dañoo call lii student uh, kii number bi du mun a wokk ba pare parents bi du mun a xam si lu mu nekkee xam nga at least yaa ngi dugal sa doom school at least like a week nga dem fa three times in a week or two times in a week nga xam si lu mu ba pare affaire si drogue si looy naa wax about bari na si school yi te bari na ko gis because sometimes toog a sa koo bokk ak classe mu su di bes way pour nga study mooy soo jëlee soo jëlee wit bi sa booy dafa ah? ubbeeku xam nga mun na léegi yow nga di nga use idea boobu noonu that's a good idea mu ne soo study soo guddi nga laal wit bi sa booy dafa ubbeeku loo study dara du na so yow tam su nekkee ne yow sa boobu dafa oyof tam xam nga because xel yi duñ benn te mm-hmm. dafa oyof tam nga dem jël advice bu ko si ëllëg si nga xam nga nekk na doomam doomam bi suy ciiñ daf ko gis te war na siy jóg because soo ñëwee nga gis sa doom mu ngi mel nii tey te xam nga ne sa doom melut nii war nga si jóg nga xam si lu mu nekkee mm-hmm. waaye xam nga ñeen dina gis seen doom yi mu ngi mu ngi ceeñ waaye du mën a xam li xew danoo toog seen foofu temps bu la gaa yi toog nu bàyyi ko si lu mu nekkee ba afta su wosee ñu ne xamoon oo oh, ñu ne nii ak nii xam nga te loolu passé na woon te lu may ñaan mooy waajur si suñ si taxawee because uh, parents yi noo yore sa doom bi parce que uh, naa ngay toogee nga ne sa doom li nga ko wax mu def dara nga ne ko ne nga saaga ko ba pare mu ngi déggalu loolu mu ngi dugg si noppam bi yaa koo jàngal saaga te su génnee si biir su demee ak moroomi classe bi tamit mm. dafaa toog mu saaga dina saagantee gars si biir classe bi because yow te moom foofu la ma jël ma woppi ko su demee si biti tam ku ko wax dara lu na xarit dina ko saaga te loolu ma yarekaay yëpp si kër bi la because nit ki su yaroo si kër bi si su génnee si school bi dina yaru because test yi du mun a du xale bi yóbbu ko seet si lu mu nekkee si nga yóbbu gaa school gaa yi njaay dem si fiir bi ñeen ñi dem si xam nga si vidéo club bi ñeen dem di karta ñeen ñi dem di tu different thing léegi soo demee ba nga drop sa doom bi school nga dem jël sa teacher bi nombaam even though soo mënutee ñëw a week twice ko nga xam sa doom si lu mu